léegi lan moo tax lan moo tax tamit duñu la gis duo ak yenn artistes yi yenn artistes yi nga xam ne ñi ngi évoluer ci milieu bi comme yow yéen bokk style musical. non man nag sama duo sax yombul man ay Youssou Ndour. lu compliqué gi ma lay wax non déedéet. mais xale yi jox leen seen mooy indi. Euh, non attends attends xale yi da leen jox parce moo ngi mel ni mouvement bi ma ubbi nii pour jox xale yi seen chance la mais xale ah nit balaa nga koy may dërëm da nga koy jàngal ni ñu nappee ba pare. xale doo xëy rek jox ko succès moo ngi mel ni tey tey man mii man leer na ma ne li ma daj ci musique am na ci bëri ñoo xam ne daj ñu ko li ma xam ci musique ñoo ñu bëri ñu ngi génn cassette te xamuñu ko te man maa ngi reculer du xool di am yu may segg waxuma laa na nga dem jël koo xam ne amul expérience boobu ci lenn nga dem rek mu xëy rek nga jox ko junni xale bu ndaw xamul xamul dara nga yëkkati junni rek jox ko mais mais est-ce que du xale yooyu tamit def ak ñoom duo des fois dina dina ci baax même parce que xam nga duo di am ay temps yooy nekk ak nit. Mhm. di nga mën a jubbanti yenn affaire yi jàngalaale ko ne ko lii lii wala yow amoo temps boobu. daal mhm. koy diwool rek. baalu ay ay Youssou Ndour ay. non ak ak am na am na ci ñoo xa ak ñoo xale yoo xam ne di nga diyoog ñoom. mais de am na xale yoo xam ne sax mosuñu ko gis moo moo jaaxal ñëpp Papa Ndiaye coppet xam nga xam nga dèjà dèjà booy booy diyoog nit booy diyoog nit da koy da nga koy man du ma nangu di dem di diyoo kenn ah nga dem wut fële ay ay ay ay sabaru pot ah ay njalaxaanu musicien ba pare bëgg ma dugal ci lool boo ko defee dama naan la sentiruma ko man dama bëgg lépp doon qualité nga woo ma ci qualité yaa ngi dégg clip ba ngay def tamit damay bëgg ñu teg ko ci yoon def ko clip boo xam ne clip bu jaar yoon lay doon te bu en général booy yi duñ am moyen yooyu yëpp duñ am moyen pour mën dem jël musicien bu baax duñ am moyen manam pour mën am teug mu baax a ah, liñu ñu gis rek moy genn même clip buñu def dañ koy takalé clip bi sax montage bi du baax yoy yep hein ah. mais lolu euh, ah lolu tay fim mu toll nii yow boo tollee benn niveau bi waroo nangu. mo ngi mel ni rek est-ce que est-ce que du yow ya wara jappalé xalé yoy yooyu ba bu la né exemple man kat 200000 francs la am pour studio nga ne ko bàyyi ma jappalé leen. wa mais lolu lolu lolu xam nga nit. dafay am foo loo xam ne bu fa tolloo mën hmm? nga ko def bañalu ko kenn waaye nag wax dëgg yàlla awma lu ma lu ma lu ma jëlalee kenn studio <laughs> ama lu amaguma lu ma defalale kenn clip mhm. yaa ngi dégg non pas defal mais jàppale na ñuy wax waa jàppale mhm. jàppale déjà man li ma jàppale ci ay nit ci ci musique bëri na say am na ñoo xam ne may soxla mëñ mu leer ma ne lii bu ma ci defee sama tuus dina ñu ñoom de ñoom tamit ñu sentir ne fii Pape Ndiaye coppet bu fi duggee dina nice ma def ko ak album bi cartonné ñu ci lekk ay ay millions Pape Ndiaye sax du ci lekk loolu kon maa ngi leen di jàppale ñaata nit laa fi defal diyo te diyo yi bi mu ñëwee dafa cartonné seeni borom Papa Ndiaye nag bàyyi ñu ñi nga defal ji yëpp dañoo siiw waaw bu loolu weesoo mais mais waaw mais mais duñu euh, ay jeune talent yoo xam ne ñi ngi kebetu comme yow waaw mais tamit nag yow tamit ah li tey fi mu toll nii Modou bu mu bëggee bëree bëre bëre bëre bëre ba jël avance yaawu jàll bu ko daanee du ca am ndam bu ko daanu du ca am ndam loo bëgg bëre bëre bëre xam nga ne kii nu mu tuddati Modou Lo wala Balla Gaye wala Eumeu Sène dinañ fa bàyyi nag avance yaawu jaal dëgg dëgg mbër la ah xeebuñu ko waaye nag du duñ bëree moom xel sax mu xalaatu du dëgg léegi nag affaire yi noonu lay demee am na ñoo xam ne da nga leen di bàyyi ñu puus ba liñ naan ba làmb boole leen Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.